bi réew mi melegul nii sëriñ si bëreegul seex si amagul kër moo tax sa jaxata maamam ñoo daa wax yàlla nee na ñoo daa wax yonent bi nee na ñoo daa wax jibril léegi la fi bàyyi ko moo tax sa jaxata maamam moo rawoon ci tund wii Kajoor ak Bawol Siin ak Saalum teg ci Serigne Touba moo yebat Cerno Ibra Faati ni ko seetal ma askan wi du moyaal buur mësuñoo dugg seen péey ñuy dunde seenu ñaq mu dem mbewndu kër maamam jël fa soxna Fat Jaxate jox sëñ Bamb ñu te ci ab diir soxna Fat Jaxate soxna Mareema jur Cheikh Abdoulaye Marema jàmbaar ji Sëriñ Tuubaa woon am naa yaakaar ci moom Cheikh Abdoulaye Marema soxna Marema jaxatee ko jur soxna Marema moo def si jaxate la bàyyam tudd mbokk ndeem soxna Faat jaxate yaayu seex Saliou mi ci kay gu neex gi Sëriñ Tuubaa ni sama doom ak Cheikh Abou Madiane ma ci pencum boppam moo tax si jaxatale seen bàyyi tudd Masata Faafaal Baba Dikke Xari Njaay Arsane Sango ji yéeri tàkko caam ay meeru tàkko caam commenceel jamono boo bokkut ak moom li nga bokk moom bu sóoree kilo ceeb du jeex maam joo am tubaarkàlla macha allah sëñ Bamba wax na lëf ci moom. Cheikh Abdoulaye Mariama sa bis bi muy gane àddina sëñ Bamba dañuy bégle leen. am naa gan goo xam ne am naa yaakaar ci moom waaye lu ne lu Serigne Touba bëggoon Cheikh Abdou Lahad sa def na ko. autoroute Cheikh Abdou Lahad Mariama sa baay. kër mag moom Cheikh Abdou Lahad Mariama sa baay. daare kaamil Cheikh Abdou Lahad Mariama sa baay. tubaarkàlla foofu Touba teg ko ci saraatal mustaqim na ko Serigne Touba bëgg woon mu defe ko soo ko dee rek sëñ dugal ko ci këru téere ya mbokk dem Cheikh Abou Madiane mi mës gane yaar mës ta tukkiwaan mbokk dem Cheikh Saliou Fat Jaxte mi sëñ Bàmba sama dooma waaye waaye soxna jëng sëlale seen yaay tudd li ma paati ndumbe da ub commencé jamono bàyyi na la xel commencé jamono xam na yaay kan te it tubaarkàlla macha allah doo sëriñu wayaa wayaa bi sëñ tubaa feeñagul tubaarkàlla macha allah si maam képp daa wax yàlla nee na yonent bi nee na jibril léegi la fi jóge moo tax sa sa maam fam soxna Faat Jaxate jox sëñ Bamba moom ta Seex Saaliw moo fam soxna Mareema jox sëñ Bamba moom ta Seex Abdoulaat Mareema sa baay ak Aboo Madiyaana moo fa Mbacke Jaxate ak Balla Jaxate ak Amsatu Mbacke ak ak Amsatu ak Balla ak Abdourahman Abdourahman ay bàyyi Mati Jaxate yaay Moustapha Saliou li nga doon ci réew mi ku ko dindi nga jeex tak tak tak tak tak Paap sa yaakaar ji fi ñëw tey sëriñ boo mën a làmb kee yaakaaram sa yaakaar gi fi ñew tay ko meuna fekki ki lay fekk si sa gi ñew tay tey ma sha allah sëñ tubaa de leena dolli waaye sëñ tubaa fekk na ngeen defaroo tay ki ba mamam di dem keur sëñ bamba sa mam isa job la andalon ba sëñ tubaa tuddi ko isa mata pap sa yaakaar gi non na yakari kanen ko dul yaram yaaram ba lay mu ngi lay siyaar mu ngi ñaan yàlla nga yàgg fi tëwër barke Cheikh Abdoulaye Mariama barke pàkkum mbéwnu ak boroom te it tubaarkàlla macha allah am laa gën ñàkk la xam na ko bi la amee ak tey xoolam sedd na xelam dal na bi la amee ak tey utiwu dara lu ko jafe bi mu la amee ak tey lu ne mal na ko bi mu la amee ak tey tubaarkàlla macha allah yëg na yokk ci kawam kanamam te luy dikk lu nekk. muy lu baax xëccal nga ko waaye leneen lu dul moom fegal nga ko du gis dara lu mu ragal yàlla na nga fi yàgg. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. leen di nuyu leen siyaare te positif ak yëg lal ko fim ñëw itam di këram bi mu xaritoog Pape Lam ni séq ak moom ak wëlëre tubaab la ko jikko ju rafet ak bëgg la ko alalam ak defal bis bi sëriñam di magi sëriñ bi sëñ Cheikh Soufal sëriñ Bassirou mu jóg ñëw ci magam lañ koy defal Cheikh Abdou mi jiite kër sëñ bi séq ak moom wëlëre démb tey doog ñëw mu ñëw te suba la ñëwoon ba mu ñëwee ñëw ci kër gi yendu woo paab mu ne ko mën ngaa yendu foofu ba takk bañ takkusaan nga ñëw loolu lépp ngir yëg gum ko yëg ak fonk gum ko fonk moo tax mu ñëw ñëw fa waaye lépp itam ci yittey Pape Lam la la aju ndax sëñ bi moom doon la nit koo xam ne loolu rek mooy li ko li ko yitteel ginnaaw bi mu amee sëñ Touba ak yëg ak woyof ak taalibeeg jikko ju rafet loolu ci lay dox ci lay dund di liggéeyal sëñ Tuubaa ci ci melo woowu bokk ci ñi gën a rafet jikko ndax sëñ Tuubaa moom eh, ginnaaw bi ci ñëpp bokkee ku la ci gën a rafet jikko rek moo la ci raw te moom mbokk ci ñi nga xam ne eh, loolu lañ doon ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa yi loolu doon na woon ci yonante bi muy jikko ju rafet ci la moomee ñëpp yonante bi ci jikko ju rafet la ñëpp jébbaloo ci lañ duggee ci lislaam sëñ Tuubaa la gën a ñëpp moom mii itam loolu rekk lay doxee jikko ju rafet rek lay doxee jikko ju rafet jooju itam moo ci dugal Pape Lam mii looloo ko dugal ci moom ndax xam na ñeneen ñu dul moom waaye am na cofeel gu mu am ci moom goo xam ne ci jikkoy sëñ bi rek la ak rafet bu jikko ju rafet ba mu ko xamee ba léegi lool rek moo ko ci dugal mu koy sant di ko gërëm itam ci bi nga xamante ba léegi jàpp gu mu ko jàpp ak ñor gu ko señ bi ñor lepp lo xamne ne señ bi la ci lu jëm ci gouvernement bi mo xam mu jëm ci Cheikh Kanté lu mu jëm ci président wala jëm ci lepp lu ci pablam dégg mu ci noppam dana ko lijeenti ni ko señ bi bëgg lool mom ngi leen koy séral señ bi diko ci sant di ko gërëm eh, wax di nak man mi wax lo nak <laughs> ma ma munta wax waye señ mom yene mom wax deug yalla ci pablam lepp luñ ci wax rek raw na loolu ndax fonk ko ak ak ak won ko yéeneem moo tax mu ñëw fii mi ngi sant itam soxnaam ndax soxnaam itam cofeel googu Pape la am ci moom moom la am ba fonk ko darajaale ko bis bi yëg na ko yëg ne jàpp gi ñu ko jàpp ñoom yëg na ko lool delloo leen njukkal rek moo waral mu ñëw ca bëccëg bu ndege ni ne fi ngir eh, sàkk seen mbégte rek ak seen mbég loolu donc moo fi indi sëñ bi di di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu ak sëñ Tuubaa yi ñu fi fekk soxna Kunta ak soxna Lay Mbàkke mi ak sëñ Cheikh Sofal ñoom ñëpp ak soxna si ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di seereel Pape Lam ne ko daal sëñ bi moom bégg na xolam sedd na jàpp bu mu la jàppoon it dolli na ko gën na ko yëg xam na itam lu ko leer ne eh, def nga li ñuy wax mbay ci sawewu tànk nii nga ko fonke jàppe ko ko fekk na bay nga ko ci sa kër sëriñ ndax Cheikh Abdou démb rek bañ bañ bañ nuyoo ci moom ba moom moo koy wax ne kii day wëlëre sëñ Mourtala lool mu ne ma loolu de xam naa ko waaye maa ngi lay dénk nga nga waxal ma sëñ bi ne ko maa koy gën a dénk mu gën ko jàpp ndax gërëm naa ko sant naa ko lu ko fi war ngi koy def loolu nag loolu lañuy loolu mooy mooy nit ndax loolu sëñ bi xolam da ciy sedd ndax xam na ne ni mel ci moom noonu la mel ci kër sëriñam loolu la ñuy mbay sa yu tànk kon xaarul ba ba ñëw ci sëñ bi rek doo ko def maasal na ko fépp kon sëñ baa ngi koy sant di ko gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Adja Mame Thiafour Mbodj responsable politique ci Gossas. alors euh, ngay responsable politique ci Gossas mu euh, fare ci euh, parti bu Macky Sall. waaw tey ki nga xam ne mooy kenn ci Macky Sall ak Cheikh Kanté ak Boun Abdallah di Cheikh Kanté. Mhm. dafa amal màggal di ay chant yoo xam ne def ko jagleel Serigne Cheikh Astou Fall ko tuddee jagleel ko ay waajuram. Mhm. waaye ànd ci ak soxnaam di Ami Sène Mbaye. Mhm. li ni mel en que responsable politique naka ngay ñëwee rek sa relation ak Pape Lam ak naka ngeen dundee tey li nga xamante moom mooy màggal ñun gis nañ ni màggal gi bu ñu Pape Lam wooyee ak soxnaam Ami Sène il faut ñu wuysi ndax Pape Lam Cheikh daf ko jël teg ko poor muy doomu Gosaas muy xaritu Mohamed Boun Abdallah Dionne tey ci tey mu wëlbatiku teraanga mag euh, Cheikh Kanté defal ko teraanga teraanga boobu mu wëlbatiku jàppale ci waa Gosaas parce que lu xew Pape dugal na loxoom dugal bu am solo lu xew Pape def na ci loxoom di taxawu nit ñi ci façon bu ne ndax góor poche la am mais jigéen moo yor kër ami seen yaatal ñëpp ci biir kër gi ku dugg si ami seen yaatal na la kon buñ dikkee tey ñuy màggal ñun waa Gossas ñun ñëpp dañuy ñëw pour ñëw jàppale si leen waaw alors diggante boobu ginnaaw bi waxee loolu ba pare tey li nga xamante ne mooy Gossas seen dundin maanaam nag ngeen dundee yéen en tant que ay responsable politique ak partenaire. ñun ni ñu dundee mooy politique xam nga ku nekk da nga am foo foo foo faroon mais yàlla daf ñu defal sutura suñu premier ministre muy Mohamed Boun Abdallah Dionne boole kuy responsable politique. dajale leen ñoom ñëpp boole leen ñu ànd bokk xol bokk ndey bokk baay lii moo tax ñun suñu élection macha allah vraiment ñu am résultat yoo xam ni siggil nañu premier ministre. tey ci tey nag Pape Lam aussi dugal na ci loxoom ànd ak ay camarades yoo xam ni ñoo bokk dëkk bi muy responsable yi ñoom ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk baay ba tëral li nga xam ni. moom le premier ministre bëggoon ñu sargal ko ci bir Gossas vraiment loolu motax tay buñ ko wat ci nomination premier ministre ñun ñep dañuy contane parce que Gossas kenn ëppalewu leen ci. madame Lam euh yaa nek ak euh, sa borom cœur du Pape Lam nek chargé de mission di and ak Cheikh Kanté waaye tamit nek ak président Macky Sall tey ay sant la yoo xam dañ ko jël mu koy def di ko ñaan ay wéy juróom di ñaan seen nga xam ay mbokk yeen di delloo tamit njukkal ki nga xamne moy borom Touba tuddee ko serigne Cheikh eh, sëriñ Astu Fall bi nga xamante ne bokk na ci ay kilifam tay lan ngay addu ginaaw bi nga xamne ni bis bi bokk na ci nga xamne ne ko wala ah di contane rek sante yalla sante sama borom keur Pablam ndax awma lu dul mom man awma nday awma bay Pablam rek la am te jappale na ma guddi jappale na ma bëccëg lepp lu xew ci man lu ne Pablam taxaw na ci def na ci lim wara def dima ma di jàppale sama mbokk bu sama mbokk xewlee Pape Lam moo ci gën bu dee jàmm la mo ci gën bu dee leneen la it mo ci gën lepp lu ma am lu ne motax ma am ko makoy koy sant nag di ko di sant ay mbokkam ñom ñepp lay sant contane na dal sama borom kër wax dëgg yalla contane nga sa borom kër mais sa borom kër amna ñu mu and ak ñom di leen jàppale di leen liggéeyal ba tay mu ag fi muy président ñoom Cheikh kanta ak ñu waaw di kontaan ci Cheikh kanta wax dëgg yalla mom tamit japp na ci bis bu baax bima ko joxee sama lettre lu defal na ma lu ne daanaka lu ma def ci bis lu ci ëpp lu nekk moo ko def wax dëgg yàlla di kontaan ci moom di sant ñëpp nag sëñ Abdoulaat mi fi jóge léegi sox sëñ Mortala mu sëñ Abdoulaat ñoom ñëpp sant naa leen gërëm naa sant naa ñëpp daal sant Ndàgga Jaw mii toog sama borom kër la moom it ndax yàgg naa sama borom kër nekk sama xarit loolu nag wax dëgg yàlla maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm di sant ñi fi toog ñëpp di sant grand bool waaw grand bool ñi ngi mii nga xam ne mooy sama magi borom kër bii maa ngi koy sant ndax daf maa bëgg lepp lu ma neex neex na ko bu ma amee naqar rek ma am naqar bu ma contané tamit mu contane ma ngi koy sant sant sama mag du góor sama khalifa ma ngi koy sant moy sama taw yaay aw ma lu dul moom maa ngi koy sant di ko di sant Jëfum Mbooj Jeyna ba Saw Ndey Jóob kep ku fi tew ku nek rek contane na ci yow ma ngi sant ñep di gëreum sama yaay ji nga xamné moma moo muy nenné aw dul mom xawma sama yaay xawma kenn mom la xam mom lay gis bañ naa ko ba mu won sax sama yaay. bi mu fiy jógee sax defuma benn problème ndax nen ndax moo ma daan defal yëpp moo ma yor ci lépp maa koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla guddal fanam di ñaan tamit yàlla may ma lu ma ko yóbboo màkka rek laay ñaan sama goro awayo mbeseen waaw bi fi jóge di yaayu Pape sant naa ko gërëm naa ko wax dëgg yàlla ndax maa ko gënaloon Pape Lam mi maa ko gënaloon Pape lu nekk la ma daan defal suma pablam mere sax yeen say day mere pablam bëggul pablam wax ma dara lu ma lu dul lu ma neex rek lepp lu mu am tamit tek ko sama loxo dawul dencal bopam dara nak luñ ko massa jox rek jël nako sama loxo ma ngi koy sant ko ñaanal yalla yalla seral ay xam xala ko ci àjjana yi gëna ko di pablam tay ñu organiser bis bu toll nii fii ci Gossas ngeen téwé ko lan ci am bis bi de xanaa ginnaaw biñ sante yàlla julli ci bi tedd bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi ñew tew fi ci suñu wetu xarit Papa Lam ndax comme niko ko soxna mi sen bay waxe rek xarit bu yàgg la ndax dom ji ma tuddé amna tay ñaar fukki at kon xaritoo bu yàgg na ginaaw om mom ami sen mii tay jappé ma mak jappé ma jëkër mak sax la gëna japp ci jëkër di sama xarit lool momit kon tay buñu xewé lu melni nii yoon la ma yendu ci fi ndax yendu si fi sax moom moo warul waaye xat-xatu àdduna yéeg yenn détails yi ñu doon lijjanti moo waral ñu ñëwul euh, ak si fi léegi ndax lépp lu ñu organiser rek kenn waruñu ci jiitu ndax suñu relation ak moom ak it taxawaayam ci dëkk bi ak ci région bi yëpp parce que Pape yaakaar naa ni kenn umpalewul euh, li ko Cheikh def di ay mission yu ñu koy jox mu di ko doxal fàttewu ci région de Fatick. ak département de Gossas bi nga xam ne fi la dëkk juddoo fi yaroo fi kon bu fi xewlee rek tey kenn ku ne war nga fi teew ndax loolu ñu nit teew nañ fi ci ñaari cër muy cër boobu ak bi nga xam ne moom laa wax léegi muy relation bu ñu yàlla boole ñu seex ko depuis très longtemps te it mu rafetal ko lool kon dañu ci am contenté tey di gërëm ñi teew ñëpp ndax ngërëm li war na ko waaye war nañu ñu nit ndax duñ ko ko defalee defal nañ ñu ko kon ci loolu moo tax waral suñu tànk tey ci mbir mi